activiste wala bokk politicien fii moom doo fi dugg waaw fii moom ah, ñoo ngi fàttaliku benn journaliste bi ñu fi duma woon duma yu metti mi ngi ne la téye ko làpp ko làpp ko <laughs> sama xarit bi Alassane Baldé kooku moom du sama xarit Alassane du sama xarit sama frère la waaw ñoo bokk suñu seen TV euh, Alassane Baldé euh, rëp seen TV tey gis nañu place euh, de la nation hyper quadrillée sous haute surveillance dafa mel ni ki dañuy filtrer nga nekk activiste wala ba politicien fii doo fi jaar tey tey ban euh, ban ban ban kii nga ma mën a jox tey ci li nga xamante moom lañ fi gis nga déjà fourgonnette bi ça dire que la bip est la bip donc ça ah. dire que ah, ah. voilà génne nañ moom sur les moyens mm. génne nañu pour véritablement bañ marche bi am comme ni ko préfet waxee mm. kon ñu jàpp ne ñoom ñu ngi seen rôle waaye ñi nga xamante mooy manifestant itam ñu ngi seen rôle ndax ñoom a marche à la kuliyal ñuy annonce sax ñu ngi yoon bi bon on essaiera de voir fan la ñuy duggee parce que xam dina doon mbirum naxante lay doon parce que ñoom bëgg nañ kut kut yegg fi nga xamante ne mooy place de euh, la nation mais gars yi gis euh, ñu ko bunkeriser daanaka dañuy c'est très sélectif journaliste sax sa oto du romb da ngay wàcc ñu ñuy ñu jàll quelques rares oto la et que sinon voilà ñu si des kenn du dem donc ça veut dire que ñoom ils ont pris les devants pour véritablement bañ. ñi nga xamante ne nga xam ñoo dëkk côté école Fass bi pour ñu jaar foofu. ñu da ngay da ngay da ngay da waaw da wiiri lépp lu wër euh, li nga xamante ni mooy euh, place de la nation bi rawatina académie bu Dakar bi. Mm-hmm. Euh, jëm fédère bi kii bi nu sax lycée bi. Mm-hmm. jàpp nañ lépp daanaka dañ ko quadrillé donc kenn amul fee am accès même ñu fi dëkk sax dañuy obligé def le lu jëm nag ci wàllu kaaraange gi mm. mais li am parce que c'est interdit ñeenee dañuy braver interdiction bi ñoom tamit seen rôle la ñu nekk cadrier yoon bi nga xamante dañ leen fa tere ñee tamit seen rôle lañ nekk ne ne ñoom par force dañuy def seen marche waaw moo tax na gis nga affaire yi xaw a dugalante nii gis nga gars yi fu ne la ñuy dem check point yëpp la daal di euh, bon ils suspectent tout monde comme li gars yi di wax comme dañ ne marche interdite la mënuñu xam ku manifester ku manifester wul donc moo tax ils prennent les mesures sa oto dañ lay xool ba xam politicien nga wala oto yu bëri yu jàll sax sama gars yi la xam rek dañuy nekk ci waaw yaa yaa